Babacar Touré nek patron ci groupe de presse bobu lay ñuy et Kewlo way itam nek journaliste d'investigation mom nak ñu ñuy annoncé comme information que ne Babacar Touré momulé dañ ko daal di convoqué niki ëlëk ci mardi bi feulé ci section de recherche bu koloban Diab d'après nak li nga xamné rek daal dinañ ko xamal comme information li waral convocation bobule. moy li nga xamné rek Babacar Touré daal dina ko def ben live di wax ci mbiru affaire kii di maître Dior Diagne dossier bobu nak mo waral ki nga xamné rek mom moy Babacar Touré ñu daal di koy convoqué fële ci section de recherche bu koloban ki nak mom mon petit beau moo daal di euh, porter euh, plainte maître euh, mon modal de di porter plainte Babacar Touré pour rek dal di seetal deram ci mbir mom nga xam rek Babacar Touré D'Aldi di a def ben live ci euh, li nga xam mom média wam di euh, rek euh, ci andi ay Leral, gannaaw ba nga rek def investigation ki nga nak mom maître porter plainte ñu koy convoqué Niki ëlëk mardi